di di leen di gërëm ñëpp euh, euh, di remercier surtout euh, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République du Sénégal di remercier premier ministre bi monsieur Ousmane Sonko ñu ngi di remercier ndaxte confiance mom yombul nam des milliers de Sénégalais mënon nañ len nommer waaye suñ demee ba tànn ma rek ma jàpp ne yen ma yen nañ ma yen boo xamante ne war naa mën a góorlu man ak sumay mbokk ak sumay xarit pour que sénégalais yi surtout étudiants yi ak agent COUD yi li nga xamante ne moom la ñu bëgg ñun ñu siy doxee wala ñun ñu siy jàpp bu baax a baax a baax euh, suñu remercier ñooñu ba pare dañuy remercier suñu xarit ak suñuy mbok sànq rek maa ngi doon wax ci tubaab ne ñun dey mosuñoo wéet Eh, tay suñu woote woon yakarna naa nit ñi duñu xej fii ñun ñëpp xamante nañu suñu biir kon xarit yooyu ak mbokk yooyu ak am jam yooyu tay laa leen gën a fulal tay laa leen gën a yaakaar si sas wi si waar wi su ma remercier ñooñu ba pare ma ne partenaires yeeg étudiants yëpp ñu ngi leen di yaakaar te leen di xaar ñun ñëpp ay sénégalais lañ ñu ñu ñu ànd xëccandoo dóorandoo comme niñ koy waxee su loolu weesoo nag ma ne ñun de campus bi bañ nekkee étudiant sax amoon nañ luñ ci ñàmmoon waaye nag tey nekkatuñu étudiant li ñuy def rek mooy déglu étudiants yi xam ñoom lan lañ bëgg ban restaurant lañ bëgg ban environnement lañ bëgg nan lañ dor ban dortoir lañ bëgg étudiants yi daal nañ xam déjà ne ñun dinañ leen déglu te dinañ leen gunge ndaxte étudiants euh, ñoom daanaka ñoom ñoo ñuy remplacer ji ëllëg loolu daal duñ ci bañ dara en tout cas ñu ngi yaakaar sénégalais yëpp yëpp yëpp yëpp yooyu yëpp nag nañ ko liggéey doxal ko teg ko si jub jubal ak jubanti jërë ngeen jëf